Demba nuyu naa la. fay naa la. Demba ma gis la nga ànd ak Pokola Demba yaa ko andi hmm. nga yaakaar dina dóor Dame Sogé mu daan. yaakaar bu mag kay laa si amoon. Hmm. Hmm, noonu la yaakaar bu mag kay laa si amoon. man da nga di jubile ba sa baat bi dee de. nelaw Pokola su jugee ñëppay jug. waa Cuurba ñëppay jug kay kenn du des Pokola su jugee ñëppay jug. kon léegi fi mu toll nii ñoo ci des. ñoo ñoo des ñu nekk ci biir rek ñu ñëw may ñu chance rek. Ah. nga fan nga fan nga bëgg. seen jàll. na ah. ñëw may chance ñu faxas seen jàll. fi mu toll fan nga bëgg mu dugg da nga bëgg mu des Passe ba tey wala mu dem Grand Yoff wala mu dem Thiaroye wala mu dem Fass wala mu dem géej waaye fan nga bëgg mu des fa. fu mu dugg ñu jëli ko ragaluñ fenn. Ah. fu mu dugg ñu jëli ko kay. kon daal Pokola ca kanam. waaw. ca kanam nag. Ama Baldé nag fan la toll. Ama Baldé ah fu mu toll. ne xaar ko koy laajte lañ ko. mais diggante ma Modou Lo. Modou Lo day xaar Modou Lo ñaata fi daloo Modou Lo day xaar ba ni ba ni def lu ñu war a def ba pare ba def lu ñu war a def ba pare soog a ñëw. mais mais mais Modou Lo est-ce que fi mu toll nii Modou Lo ak Ama Baldé fi mu toll nii moom la moom la àdduna bi di xaar. Modou Lo Ama Baldé Modou moo taw ñun ba ñu paree ba ñu paree moo yàgg di ko xaar ñun ba ñu paree moo yàgg di ko xaar. mais Modou Lo dama dégg ne dafa feebar. feebarul feebarul du dara feebarul moo bëgg a dawaay dawal rek man ngaa say ay yëfam rek. non mais mais mais Modou lan lay daw ci Ama Baldé. ñemewu booy bi suñu woon prix booy bi la koy dóor mu daanu kay. Modou Lo ñemewul Ama Baldé Modou la ragal ci Ama su bëggee ñu bëree ko si rondalam waxoon ko naa ko waxaat su bëggee ñu bëree ko si rondalam. bi paasal bii néegu Modou Lo ngeen la Ama Baldé di bëree moom. ci biir rondalam. Ama yëpp moo koy tere nalaw su xalaatee lool day dof. lan ngay wax Modou Lo moo ngi lay seetaan. Modou wax Modou Lo amul lu wax si moom daal mag bu amul jom la xale bu ndaw nga xay daw xale bu ndaw xam na ni xale bu moo ko mën léegi si pico paaxu fii amul ku ko ñeme. kontaan naa ci yow. Hmm, kontaan naa si yow. da nga am combat. waaw. da ngay bëre mbapat fi mu toll nii. waaw. ñaata combat nga am. ñaata combat cinq combat. ñaata victoire. ñaata victoire quatre victoire. déet ba yokk loolu ci bokkul. non kaddu bi combat bi la woon. man neexu nen. waaw. combat bi kañ la woon. combat bi samedi bii nii paase la ah. nga ma noppi wala bëgg ko. daa yàqu. ci kan la yàqoo. ah ci kan la yàqoo. bàyyi ba après ma tegal la. déet ba da nga delloo avance bi. delloo ma avance. kenn du fi bëri delloo avance. fii kenn fi bari ba delloo avance kanaa ñu kanaa ñu ni gaa seen yëf la mais fii dara du fi dugg ba pare neen dëggee naat. ñaata séance ngay def entraînement. ñaata. ñaata séance entraînement nga de jour bi. su ma demee Mboro moom naa def naa def quinze naa yéeg quinze. waaw boo su ma ñëwee fii ma daw def contact wala ma def sóora dara. may ma sóor avant. ah Demba Sona. bi. deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix. mais mais mi nekk caaxaanu de Demba nekk mbër la de mais Demba kañ ngay wut licence dugg ak. licence ba si kanam rek. da ngay xaar ba si kanam ba pot ak booy waaw. mu toll nii ñan nga teg sa bët yan booy. am na benn booy bu nekk jàmm gën bu ñuy wax liis liis liis Ndiago numéro 2 xam nga ko. na ñëw. est-ce que ñeme ngaa ci booy boobu. waa Kër Fallay la ak moom moo ngi lay seetaan combat boobu dinaa ko dox sa diggante boobu damay bañ nag dox ko mu sotti ngeen war a bëri nga ñëw delloo avance naan ma non c'est que c'est-à-dire ci kanamu Pokola nag. Boy Liss jëlal sama avance may ma sens jëlal sama avance dégg na li ma ko wax moom. waaw. Demba kontaan